rëy googu nag ak kañaan comme que ay jàngoro lañ daa am lu koy saafara sëriñ bu mag bi nee na bu fekkee kañaan la koo xam ne yëg nga ne am na lu nekk ci sa xol ci kañaan ndax kañaan bokk na ci li koy waral di lijjanti nit ki lu mu am ak lu mu ñàkk maanaam nit ki bu bëggee àdduna rek ba nga xam ne nit ñi day lijjanti lu ñuy am ak lu ñuy ñàkk kooko kañaan mën na koo dugg kañaan mën na koo dugg te kañaan dana waral nit ki ak dundam ci kaw suuf du neex ndax ki nga iñaane jamono bu nekk danga koy gis muy yokk waaye yow ci sa bopp dangay jëm suuf te kañaan day mel ni ki da ngaa fekk dogalab yàlla lu yàlla def nga ne lii du fi amee kon doy day mel ni ki yow da ngaa bëgg a jàmmaarloog suñu borom sëriñ bu mag bi nag nee na li koy saafara ci doomu aadama comme que jàngoro la te wéré di gu nekk danañ wax lu koy saafara nee na mooy saa yu nit amee xéewal saa yu amee lu baax nee na na wéet foo xam ne moom sax yëgu ko nekku fa nga di ko ñaanal yàlla loola mu am mu nekk njiglaayam nee na loolu bokk na ci lii dindi kañaan bu ngeen jàngee alquran suñu borom day wax ne am yaxsuduuna annaasa ala ma aataahum allahu min fadli ndax dañuy iñaane nit ñi la leen yàlla jox bu ngeen dee jàng qul audu bi rabbil falax wa min charri xaasidin ida xasad mooy koo xam ne dafa iñaan beneen bi mooy rëy googu lan moo koy saafara nga xam ne ci jàngoro yi la bokk sëriñ bu mag bi daa indi ci masaalikul jinaan daan ne rëy nit ki bu yëgee ne daa nekk ci moom mooy daa xeeb doomu aadama yi daa bañ dëgg mooy lan mooy day xam ne yàlla tëkkoo bi mu tëkkoo ci képp koo xam ne jàngoro yi daa nekk ci yow bu xamee tëkk boobu te mooy yàlla da koy tàbbal sawara loola dana tax mu xam danger bi ci nekk dana ko moytandiku beneen bi it nee na bokk na ci li koy saafara mooy ñun ñëpp ñu xam ne doomu aadama yi seen cosaan benn la te cosaan li mooy lan mooy sunu maam aadam te aadama ci lan la ko yàlla bind ci suuf la ko suñ borom bind ci suuf la ko yàlla bind bi mu bindee aadama ci suuf ñuy sëyante doomu adama yi ci nañ lañ juddoo mooy góor ak jigéen guy jaxasoo am man niyu muy sobe soo xam ne day bàyyi koo ci ku góor dem ci ku jigéen doom soqi ko ca te mooy hal ata ala al insani xiinum min addahri lam yakun shay'an madkura inna xalaqna al insana min nutfatin amshajin nabtali fa jaalnaahu samian basira kon ci ci man yu la ko suñu borom bind comme que yow nag ci sobee la la yàlla bind te doomu aadama buy dox ci kaw suuf biiram bii ay sobe moo ca nekk bu faatoo it ba ñu denc ko ci bàmmeelam lu mujj yàgg-yàgg dafay nekk am médd nekk sobe kenn dootu ko bëgg a jege képp koo xam ne nag xam nga ne foofu ngay mujj kon jërul ngay rëy rëy jërul ngay jàpp ne yow yaa gën kenn beneen bi ci tegee mooy nit ñi sëriñ fàllu yàlla na yàlla yërëm ko sëñ Touba daf ko waxoon ne ko ci tënk ci wax ji ne ko xamal ne tedd nga ak mbaax du loo xam ne ay bàyyi ki maam ñoo la koy fàggul waaye yow yaa koy fàggul sa bopp mu ne ko lay tax nga gën lay tax nga baax lay tax nga tedd maanaam nekkul ne rek da nga naan sama baay sama maam moo fi defoon nangam ndax am na ñoo xam ne loolu lañuy ñuy ndamoo waaye nee na mooy loo xam ne yow yaa ko fàggul sa bopp mooy loo xam ne yaa ko fàggul sa bopp ba muy wax naan bi'tu bu nu watiyee bil li kay uxda lakum bi xarqil aada min baadi ma staraytumuha min nii ahdaytuha lakum bi xayri man ni mooy lan mooy dafa jaay ak njuréelam jënde ko ak taalibe mooy kon xam nañ ne mbir mi nekkul rek ci aw askan ndax sëriñ bu mag bi nee na nit ñi li ñuy gënantee nekkul ay sant nekkul ay askan waaye nee na képp ku la gën a ittewoo xam-xam gën laa farlu ci ak jaamu yàlla nee na kooku moo la gën waalam bi annama tafawutul wara bil ilmi wa diini yakunu fasbira wa bihima yafdulu man qad fadula la bintisaabihi liman qad i'tala min jihati l ansaabi abbin wa umin fa fihima ijtahid ma at taaddubi naafiq nag mbokk yi ñaar la dafa am naafiq goo xam ne bu ko nit ki amee danañ jëflanteeg moom kem ni ñuy jëflanteeg jullit ñi waaye moom ak biiram ak kéefar moo ca nekk te mooy naafiq gi nga xam ne moom la suñu borom indi ci suratul baqara wa min annaasi man yaqulu amanna billahi wa ma hum bi muminin yuxaadicuuna allaha walladina amanu wa ma yaqdacuuna illa anfusahum ba ni aayaat yi jeexee nga xam ne bu nu ñëwee ci yonent bi ak jullit ñi dañ nan leen yéen la ñu àndal gëm nañ yàlla gam nañ yonent bi ida jaaka almunafiquuna qaalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yaclamu innaka la rasulu wallahu yaclamu inna almunafiqina la kaadibuun la lañ lay wax waaye bu ñu beroo ñoom dañ lay saboote dañuy wax ne ñoom weddi nañ lislaam gëmuñu lislaam bokk na ci melokaan yi leen suñu borom jox ci taw ba mooy ñi nga xam ne ñu daan dem xare ñoom du ñu dem xare dañuy wut ay ngant yoo xamante ne si ay nganti tappale la ngir bañ a dem xare waaye bokk na ci ñi nga xam ne du ñu atte woo ci li nga xam ne moom la suñu borom dig la ñu atte ca comme ni mu ñëwee ci sóoratu nisaa yi am geneen naa feq goo xam ne nag daa aju ci jëfi doomu aadama nit ki ab jullit la waaye jikkoy naa feq mën naa nekk ci moom yonent bi nee na ñeent ngi nii yoo xam ne ku mu nekk ci yow am naa feq cent pour cent nga bu ci benn nekkee ci yow amee nga jikko ci jikko naa feq mooy lan mooy ida sa kazab mooy nit koo xam ne du wax dëgg maanaam nit koo xam ne lépp lu mu wax rek moom lam cay nattale mooy lu dul dëgg maanaam léeg-léeg sax am lu am mu jéem a wutuwu lay ngir lan ngir bëgg a génn ci loola dana ko jaral mu yëkkati ay kaddu yoo xam ne kaddu yu dul dëgg la te wax lu dul dëgg mooy nga wax loo xam ne daa wuuteeg li am léeg-léeg sax nit ñëw jóge ci barab daan diw sàngam day ma nga lay nuyu te fekk ala mikk diw sàngam moom wax ko ne ko nuyul ma diw sàngam diw sàngam gëj nga koo dégg fekk toog nga ñaari yor wala ñetti weer déggoo ko nga ne déedéet barki démb rek dégg naa ko loola da nga koy xeeb waaye wax lu dul dëgg la te beneen bi mooy koo xam ne lépp lu mu dégg bala moo am jàmm da koy nettaliwaat maanaam daal moom du téye ab xibaar xibaar bu mu dégg bala moo am jàmm dana ko jàllalewaat maanaam xamut lu mu war a nëbbu digganteem ak nitam ak lu mu warta nëbbu yonent bi ne nag kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma yasma nit koo xam ne lépp lu mu dégg bëgg koo nettaliwaat nee na kooku doy na ko aw fen beneen bi kon ida haddasa kazab mooy koo xam ne du wax dëgg ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na woon nit ki du dañ di wax lu dul dëgg ndax dëgg day ñàkk wax dëgg day jëmale nit ki ci kàccoor te kàccoor fa mu jëmale nit ki mooy sawara nee na nit ki du dañ di ñàkk wax dëgg ba ñu bind ko fa yàlla mu nekk ab wax koo xam ne ab fenaakoon la du wax dëgg nga xam ne lépp lu mu waxati rek même bu nekkoon dëgg nit ñi dañ naan xanaa du wax yi diw beneen bi ci jikko naa fekk mooy koo xam ne bu diggee la mu digee du ko def koo xam ne ida waada axlaf maanaam day joxanteeg yow rendez-vous 11h dajee barab sàngam nga toog fa di ko xaar sa programme yàqu doo ko fa gis sëñ Cheikh Gaynde Fatma yàlla na ko yàlla yërëm da doon wax ne lépp loo def lépp loo wax def ko de yàlla rek ko ko man waaye lépp lu ma wax nar naa ko da ngay jëflanteeg nit ci wàllu alal mu ne la ah al ma foofu ñaar téeméer fii ak ginnaaw suba de dinaa la ko jox booba nga ko noppee gis menn mbokk dañoo toog di waxtaan mu ne ma man dey diw sàngam dafa ma nettali ne moom daa am xaritam boo xam ne benn lañ woon waaye daa ñëw ci moom leb ko ab 5000 ne ko fii ak suba dinaa la ko jox nee na ba ko lebee 5000 boobu boobu la ko mujj a gis mu ne la ma ca maanaam mooy lan mooy nit kii day waxanteeg nit loo xamante ni si danaan ko léegi léegi dinaa ko def boo fi jógee pare na ci maanaam kooku amee na jikko ci jikko naa fekk mbokk yi. fii sax da ngay woote benn programme mu war a tàmbali heure sangam ñu naan la heure Sénégal bépp askan woo xam ne seen waxtu fonkuñu ko askan woo mënul jëm ci kanam. beneen bi mooy koo xam ne isa tumina xaana buñ ko wóoloo mu wor nit ki da kaa wóolu ba jël sa alal dénk ko ne ko téel ma ko ba ci président de la république wala ministre bi dañ laa dénk dara jox la ko ne la téel ma ko maanaam waaye yow la ngay fexe mooy loola nu ma ca defee ay wor wala boog nit ki wóolu na la ba jël secret dénk la ko ne la a ah, lii kat sama digganteeg yow la lan ngay def mooy da ngay dem ca diw sàngam ne ko diw sàngam nee na ma nàngam waaye kat nee na ma bul ko wax kenn de kooka dem ci keneen ne ko nee na ma nangam waaye nee na bul ko wax kenn kooka dem ci keneen wax ko loolu bu yàggee xibaar bi da ngay yekki-yekki rek muy tasaaroo ci dëkk bi fekk kan ko waxoon ngir mu nëbbal la ko kooku moo ko tasaare te sëriñ Touba da wax ne waltaqini ifshaa sirrin wajaba kitmaanuhu yaa man yurini al ajaba yow yàlla nang ma fegal may siiwal secret boo xam ne dañ ko war a nëbb kon nit ki dénk la secret wala mu dénk la alalam nëbbaloo ko ko loolu daa bokk ci jikko naa feq ñii nga xam ne ñooy ay politiciens ñëw di dikk askan wi bu ma toogee dinaa def nangam dinaa def nangam dëkk bu ñu dem dig leen te bu ñu toogee duñ ca def dara kooku mii ngi ci jikko naafiq bi ci mujj nag muy ñeenteel bi mooy koo xam ne ida qaasama fajar mooy koo xam ne saa yu àndeek nit lépp lu mu ko xamal ci ay ñaawteef wala lu lu doy waar dana ko ko nëbbal ndax dañuy ànd amagun jafe-jafe waaye saa yu ñu amee problème lépp luñ ko lu mu ko xamaloon ci ay ñaawteef dana ko taxaw wax ko ca mbedd ma diw sàngam xanaa yow bërki de mu ñoo fi ànd yaa fi wax nangam yaa fi def nangam gis naa la te fekk nëbbaloon na ko loolu waaye am gi ñu am jafe-jafe moo tax mu taxaw ci kanamu nit ñi yullil ko loolu lépp mu amoon kon yii mbokk yi muy kañaan muy rëy muy jikko naa fekk dafa bokk ci yi nga xam ne bu nekkee ci doomu aadama day gàllankoor ab doxam jëm ci yàlla sunu borom wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bismillahi rahmani rahim bismillahi alhamdulillahi alladi tafarrada قال